jërëjëf ki mhm. kii dafay laaj moom itam ba tey ci julli la wala boog ci wirdo nee na ndax tiim mën na wirdo tiim julli bu ma nee ka ki julleegi farata tiim mën a wirdo mën a ne mhm. sharia nangu na nga julli nga tiim julli bu paree mën ngaa tiim timit nga wirdo ku mel ni maam Alaaji Ablaay nge sax dafa gëm ne tiim gi nga julli xéene ci julli tàkkusaan ba nga paree mën nga caa wirdo bu tojut bu toj liwut nga caa wasifa comme dafa caa jokk mhm. ndax mu ne bi nga xamee ne julli tiim ngir julli ba nga pare mën nga caa jokk wër kaaba ga man caa jokk jàng alquran man caa jokk julleeg néew mu ne loolu mooy teg leen tamit ne ba nga tiimee ngir julli ba nga pare mën nga caa jokk wiir do wax mhm. loolu moom laa jëb laa ngees gëm ci téere bu ñu tuddee tabaarakallaahu Euh, naylul maraamam téere bu am solo boobu mooy mufidul anam boobu mu def mm. téere bu ama am solo ci la wax laaj boobu donte fekkoon na ñu ko jiitoon ci tarixa bi ñu bari di wax ne boo wirdoo ngir julli soo paree nga war a at ngir nga war a tiimaat ngir wirdo waaye benn tiim attanut julli ak wirdo mm. waaye benn tiim nag attan na julli ak wasifa waaye bu fekkee ne nag ngaa tiimoon ngir wirdo boo paree ngaa tiimoon ngir julli boo paree ngay tiimaat ngir wirdo maama laa ji ne déedéet génn tiim nga xattan na julli nam xattane julli tusubaar googa wala tàkkusaan noonu la xattane tiim nga mën caa wirdo jërul ngay tiimaat mhm. kii oustaz dafay laajte moom itam ba tey ji nee na dafa bëggoon nga dikkal ko ci baatab laa ilaha illallah ak laa ilaha illallahu lan mooy différence bi waaw ñaar yëpp benn la mi ngi ajoo rek lii doon bi piir nag mooy illallaahu loolu mooy cosaan su fekkee waa ji nag dafa bëgg def def ko xawu sakta mooy foo xam ne daf fay noppee taxaw mën na wax ne laa ilaha illallah waaye bu doon wax ne laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi kon foofu dañuy bëgg mu wax laa illa illallahu loolu lañ gën a bëgg mm-hmm. waaye bu fekkee da foofa nag ne laa ilaha illallah ba tey baax na mm-hmm. waaye la gën a jub gën nga nekk ci i'rab mooy laa ilaha illa allah waaye ànd yooyu yëpp nag lan doon tekki rek lay tekki nag mm-hmm. mooy benn buur amul bu dul yàlla rek mm-hmm. mm. jërëjëf